dañuy door seen xibaaru tàggat yaram ak lu jëm ci wàllum làmb gannaaw ñaari at ak ñaari yoon ñu reporté bi le combat war a dox ci diggante Papa Sow ak Siteu mu mel ne ni léegi nag lépp leer na le premier gros choc de la saison dinañ ko amal ni ki 5 septembre foofu ci arène nationale ba war a dox ci diggante Papa ak Siteu Papa Sow jógee ci défaite ci digganteem ak kii di Ama Baldé bëggaat nag def kéem kattanam ngir relancer waat gannaaw ba mu jógee écurie Fass ngir taxawal ab écurie ci beneen wàll ba Siteu nekk espoir jëm ci làmb ji jóge moom tamit ci défaite ci digganteem ak kii di guy gi gis na ni ngir mu dikkaat ci place bu mu am ci làmb ji faaw mu daan Papa Sow lépp dina leer nit ki juróomi fan ci weerum décembre di fàttali ni boobu le combat kii di Pape Abdou Fall moo ko tëgg ba tey lu jëm ci làmb waaye nag dañuy waxtaane B52 di bombardier moom mi la mu mel ni nag deltu na ginnaaw ci revanche bi nga xam ne bëggoon na ko jël ci doomu polonais bi di Pudzianowski mi ko daan ci 18 secondes rek ak kaw li ni mel nag kii di Gaston Meng bi nga xam ne moo tëgg ko mbaam war dox ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2 moom moo tax ba mu xoolaat boobu boobule décision ci làmb ba tey ak kii di Mohamed Daw Tyson mi xam ne ni ñett ñu ko gën a marqué ci làmb gannaaw boppam bokk na ci kii di Gaston Meng mi nga xam ne mooy le père fondateur des Alioune mi nga xam ne moo jiite woon CNG bi mu tuddee ko le bâtisseur moom nag mu jàpp ne c'est le phénomène moom moo révolutionné lii di làmb ji lu jëm ci wàllum football maître Augustin Senghor dikkaat bu baax a baax ci CAN Cameroun 2022 mu gis ne Sénégal nag day dem ci boobule CAN ngir jëli coupe bi ab demande boo xam ne jot na nag ñu matal ko te matuwaay yi war yépp fédération bi ànd ci ak nguurug Sénégal dinañ ko jël lu jëm nag ci entraîneur bu équipe nationale di Aliou Cissé mi nga xam ne contrat dañ ko yokkaat maître Augustin Senghor jàpp na ni Aliou Aliou Cissé ak ay joueur am waruñu am benn pression ngir nag atteindre seen ay objectif gannaaw symposium bu ñu doon amal niki ci week-end bi foofu ca Saly ngir nag waxtaane lu jëm ci wàllum football bu Sénégal conclusion yi ñu ci jël bu ñu sukkandikoo ci kii di président bu ligue bi di Mohamed Djibril Wade dinañ ko nag jébbal autorité compétente yi ngir nag ñu indi ay jubbanti ngir football bu Sénégal gën a mën a jëm kanam surtout nag lu jëm ci wàllum championnat bi nga xam ne lu tollook fukki at ak ngi nii ñu koy amal ñu dippee ko championnat bu professionnel championnat boobu la sax dinañ ko door weerum novembre yi ñu jëm championnat amateur bi nag dañ koy tàmbali ak coupe bu haut conseil des collectivité territoriale ñu dippee ko coupe Ousmane Tanor Dieng bi nag mooy ñeenteelu édition bi 32 équipes ñoo ci fas yéene bokk biñ ci jógee nag ci la ñuy door lu jëm ci wàllum championnat bi niki fukki fan ak benn ci weerum décembre ñu wax ci CAN féminine Sénégal Libéria niki tey kon bu 17h jotee Sénégal dina xam fan la jëm ngir lu jëm ci ñaareelu tuur bi naam sax ni gaynde Sénégal yu jigéen yi nga xam ne kii di Mamoussa Cissé moo ñu tàggat am nañ ab avance ndaxte ci match ale ba ñoo daanoon ñi di waa Libéria ñaari bal ci benn kon Sénégal bu gën ci jongante tey gi dina ci laale ak Mali mi nga xam ne moom moo daan di waa Guinée ca Europe Liga espagnol bi tey lay amal fukk ak benn lu bëccëgam bu avancé ak ñetti jongante Alaves dina si laale ak Elche espagnol ak Atlético bu Bilbao la Villarreal di dalal ñi di waa Cadix ca Italie moom dixième journée bi kon tey jile Venise ak Salernitana la Spezia moo ci dalal Genoa AS Milan bu Fodé Ballo-Touré dina dalal ñii di waa Torino ñu jeexale ko ca Angleterre ak League Cup bi seen ñeenteelu tour tey Chelsea bi ñoom Edouard Mendy moom mooy dalal Southampton Arsenal di ci laale ak Leeds United Park Rangers ak Sunderland lay doon.